Oumou Sow tey ban sentiment nga am ci accueil bi ñu réservé tey Wally Seck biir këram. fierté ak euh, victoire boo xam ne ne tey jii bi ñuy dem metti woon na trop ku ci nekk am nga benn stress boo demee am nga coow loo demee mais dañ ko dékku xam ne ne ñun fi ñu jëm gëm nañ ko wóolu nañ ko te xale bi ñu jiital muy waali Wally Ballago Seck mu ngi demal baayam comme li mu wax li Wally Seck wax ñun luñ ci tegaat rek lekk leneen mais damay xamal askan wi xamal waa Sénégal sama bëggeel ci Thione Seck ak sama euh, sama cofeel ci Thione Seck ba may nekk xale la ba tey kon tey damay gën a confirmer sama bëgg ci Thione ak li ma li nga xam ne ne man ne Thione Seck mooy sama baay amul tricherie jusqu'à la mort ndax Sénégal yëpp xam ne fii ma nekk nii dama fee war a nekk te Papa Thione je l'aime tampon bi fii laa ko def maa ko wax jusqu'à la mort